yow ci seetaan di nga gis numéro de téléphone bu ngand bu ñu bind Waly Maja Seck ci suuf moom la ñoo bokkoon Alfayda moom ak euh, ki nga xam ne moom moo di Cheikh Babacar Dian di xelal euh, ki nga xam ne moom moo di euh, Cheikh Ibrahim ci liggéey bi instant bi nag mu ngi wéet Medina Jeylaani di yeggali liggéeyu way juróom wu seetlu wa mhm. di Cheikh Mouhidine Samba Diallo yal na ko yàlla dëgëral parce que li mu fi bàyyi woon Cheikh Mouhidine doon ko def dara wàññeeku ci lépp a ngi gën a yokk te lépp mu ngi toog di ko doxal amaana sax bu ëpp dara wàññeeku ci donc Cheikh jàmbaar la donc ñu ngi koy ñaanal yàlla xam naa nam naa ko gëj naa ko dégg waaye dinaa la woo nag Cheikh xam naa ni sama dóor ba ma tëddal sama bopp <laughs> non man la maa lu xunjur rek tam <laughs> léeg-léeg tam léeg-léeg Cheikh wallaay nit ku baax la te ku teg fu wajurum bu góor tegoon tànk la. macha allah te wàññiwu ci dara nag yàlla seede na ko. Mhm. sëriñ bi daan na wax ne da ngeen am ay références. waaw mm-hmm. ah, incha allah incha allah incha dama ciy jaar sax lancé waale appel gépp koo xamante ne jaar na ci ginnaaw ne ñu ngi ci ut dara wala ñu ngi ci yóotu dara wala sàkku nañ ci ndimbal. Mhm. Ah, kooku arnaqueur la. Mhm. Ah, waaw waaw loolu dama ciy lancé waale appel pour vous dire que en fait euh, euh, li ñuy sumb te sëriñ bi sumboon ko. ñu ngi ci te yàlla moo koy mottali te dina mat incha allahu rabbi. incha allah képp koo xamante ne war nañ ci dem ci moom wax ak moom seriñ bi dina jóg dem wax ak moom te loolu sax bu soobee yàlla du ci am <laughs> lépp dina yemb incha allah. macha allah loolu moom dama koy lancer waale pour ñu. Ousseynou on se donne rendez-vous le 5. restez avec nous on va vous la ville de Niakhar. avec El euh, yàlla na ko yàlla yërëm. <laughs> merci beaucoup Pape Sidi donc tey dañuy dem du yàggati ndaw na nga def dañuy dem dañuy dem maa ngi maa ngi lay nuyu Bourguewel. saa tey la di la di la bu baax a baax a baax. Eh, fayu na ci benn noo Bourguewel maa ngi lay nuyu. Eh, dañuy dem dëkk yàgg yow <laughs> dañuy dem dëkk bu ñu ñaaxar Niakhar Pape Sidi mu bokk ci benn ci département Fatick euh, raccourci bi booy dem boo fay dem boo ñëwee bu Fatick da ngay jël sa euh, gauche mel ni ku jëm Bambey boo génnee bi fekk da nga jot dëkk yu ndaw ndawaan yu si mel ni mbaan ak euh, saañ ak mbaafay même lageen ci ngay doog dugg dëkk bii di ñaaxaar ñaaxaar seen population mu ngi toll 7000 et quelques activité principale bi mbay la ak ak euh, commerce sans plus tard yi ñu saraan élément bi ñëwaat ci plateau bi Aïcha salaamaaleykum mbokki xarit yi dal leen jàmm ci seen beneen numéro seen rubrique à la découverte du Sénégal tey nag ñu ngi fii ci diwaanu ñaaxaar Ñaaxaar mu ngi bokk benn ci département wu ku fi ñëw Fatick mooy raccourci bi mel ni ku jëm Bambey da nga jot juróomi village yu ndaw ndawaan doog ak agsi dëkk bi nga xamante ni moo di Ñaaxaar Ñaaxaar boo ko doon estimé seen population mu ngi toll ci 5800 et quelques dëkk bi dëkku séeréer la comme ni ñu koy defee saa su ne danañ waxtaan lépp loo xamante nii ay bël na nekk nu askan wi fii si Ñaaxar danañ ko waxtaanee. jàmbum sew doom si dembo la jàmbum sew kamera taamoreere le na kamer na mbel jom le na waajel doom ñu ngi ko sos en 1651 waaw Ngothie Mbane ak Dalmaye Diouf ñoom ñoo ko sanc waaye fii ñu toog nii mooy Eh, tuur yi ñu doon wax jama bu ñu jógee jama dinañ dem jama njoon nañ dem njoon jama garab la guy la boo xam ne moo nekkoon fii guy gu rëy boo xam ne mag ñi ñëpp lu ñu bëggoon danañ ñëw fii am nag yu dëkkoon ci biir ba nga xam ne lépp lu ñu ñaanoon buñ fi ñëwoon ñaan sax daana am yu daan wax ak ñoom ci biir guy gi ñaaxaar capitale royale bi jaxaw la ne woon waaye capital administratif bi ñaaxar la woon tubaab France bi mu ñëwee Sénégal fii la defoon chef lieu de subdivision ñaaxar moo nekkoon chef lieu de subdivision bi de 1890 en 1897. waa centre bi début bi dañ doon transformer céréales teinture eau de javel savon savon yu ñuy sangoo ak savon yu ñuy fóote bu mu leen for bu ñu formé. di ñuy former di ñuy former ba benn jour ñu ne ñun est-ce que li ñuy former di kii nii est-ce que du ñu ubbi bitik ñun foofu la ñu commencé léegi ñu ubbi bitik madame le maire nag jàpp ci parce que commencement bi yëpp moom la moo ñu jox xaalis moo ñu def dëpp ñu commencé ubbi bitik di defar eau de javel di defar savon di jaay léegi ñun dañ dañ doon produir ba France suñu pro suñu produit daf fay dem waaw euh, problème orientation dinañ koy am parce que des fois quand même liñ ñuy envoyé ci ay élèves dafay bari euh, te capacité bi aussi tolluwul noonu moo tax aussi ñuy lancer un appel parce que euh, un lycée moderne pour Niakhar quand même war naa mën a am. ñu ngi koy solliciter auprès des autorités yi nga xam ne ñoom ñoo yor dossier boobu pour que vraiment un lycée moderne mën a taxaw pour mën a contenir l'ensemble des élèves avec un enseignement de qualité et un cadre tam adapté di ñaax toujours élèves yi ne leen ñun ñoom lañ fi nekkal lépp lu ñuy def du matin au soir pour que ñu mën a réussir la des fois nag bon mu xaw a métti ci ñoom mais c'est normal parce que nous sommes des éducateurs et nous voulons que tout simplement que ces élèves se mettent sur les rails et réussissent mieux que nous en tout cas euh, mooy suñu objectif. fu mu nekk nii on est à 59 groupements te centre bi ñu ngi ko ñu ngi ko inauguré le 13 mars 2020 2021 donc ça fait ça va faire bientôt un an donc lañ ko inauguré tey ñu ngi si à 59 groupements de femmes la commune yi nga xam ne. formé nañ leen te ñu ngi ci ñu ngi ci programme bi ñu ngi leen di suivre am na ñuy waaj a jot ay financement am na ñuy jot seen i récépissé ak yeneen ak yeneen donc euh, en même temps aussi mu am côté bu nga xam ne c'est commercial nga xam ne ñoom ñooy produire di dem di représenter foire yi xam nga parce que on a créé des marques ñu tuddee les marques du Sine si côté savon Javel Euh, teinture ak euh, céréales yi ak yëpp. jigéen ñaaxaar yi message bu ma leen di lancé mooy bon déjà dama leen yi remercier di leen encourager parce que nag ay jàmbaar lañu soxla nañu ku leen jàppale euh, soxla nañu ku leen appuyer parce que ñaaxaar day dëkk bu nga xam ne yaatu yëpp a ngi fi. day cadre intellectuel loo xalaat mu ngi fi. transport bi. ñu ngi ciy góorgóorlu de. am nañ tableau boo xam ne horaire u Dakar la boo xëyee mooy nekk kaaru Ndiaga Ndiaye bu kaar bu mag taxawee ñeenti sept place topp ci bu paasee loolu bu mini kaar taxawee ñetti sept place bu demee nag ba nga xam ne 11h jot na. léegi ñu xam ne client amatul ñu arrêté kaar yeeg mini kaar yi sept place yi ñooy continuer jusqu'à 18h bi nga xam ne ci la gare bi di tëj. suñu rôle ci diwaanu Niakhar ñun bajjanu gox yi. ñi ñooy saytu jigéen ñu wérut yi ku ci nekk en état ñun ñoo lay saytu ndax yaa ngi def visite am defoo visite ku ci deful visite ñu yebal la nga dem defi visite ku dem benn nekk kii ci sa mois ñun ñoo lay vérifier léegi boo nekkee ci ci ci kii bi ci accouchement lum guddi guddi ñun lañu yee ñu yóbbu la hôpital la siiru ba yàlla may la jàmm bi nga am sa doom. tey jii am nañu un centre de santé flambant neuf vraiment loolu euh, lu ñu war a rafetlu qui couvre tout le district district bi nag dafa jéggi commune lu am solo la dëkk euh, boo koy développé da ngay raisonner en terme de pôle avenir u Niakhar pour longtemps encore mooy côté Diakhao parce que lycée bi foofu la war a xam nga ko wax lycée moderne nga wax habitation tout tout moo tax ci plan bi ñu ne woon dañ fa def marché dem ngeen fa gis ngeen ni kër gi nit ñi ñu ngi anticiper ouverture marché les femmes bon def naa ne vous avez visité aussi le centre tuuti nga évaluer euh, xam ngeen ne yëpp boo waxee Sénégal ñu ne nañu financer femmes yi nañu financer jeunes yi mais est-ce que financer jeunes yi ak femmes yi rek sans encadrement est-ce que euh, tey jii femme boo xam ne une maire de famille am ordre nga ne ko jox naa la cent mille ou deux cent mille ou trois cent mille demal nga def activité génératrice de revenu est-ce que femme di di di di di di ay projet mënul nekk jërë ngeen jëf mbokk yi xarit di safoo la 2 lii lañ loon indiloon fii si diwaanu Niakhar ci seen rubrique à la découverte du Sénégal point yi ñu fi développé bëri na te am na solo waaye dañuy taxaw ci benn point yi muy éducation am na fi solo lool lool lool. te dëkk boo xamante ni am na éducation dafa am doole mën nañu dëkk boobu mën na jëm kanam ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni waxtaane nañ ko paj mi culture. ak lépp loo xamante ni ñi fi nekk ñu ngi siy yëngatu di si gis seen bopp développé nañ ko. kon du ñu def du jox leen dig daje beneen yoon ci beneen gox gu fasantikoo ci doonu Sénégal Momar ndaw fii ci Ñaaxaar pour la 2STV. ndeysaan alaaj na ko daa bëgg booy ñaaxaar na nga def jëndaale indaale woo foo kii nii suuna ak cee kii la euh, nan la ko séeréer yi di waxe ah, mais Pape euh, saaj Pape dafa yàlla dafa ma def dafa ma hmm. dafa def ma de tour du Sénégal deux fois dem naa ba fi Sénégalais fi nga xam da ngay taxaw di seen Mauritanie nii ñu te traversé. no mi hmm. non non Diawara. Diawara. Diawara Diawara foofu la événement naar yi jóge woon. fa laa taxawoon def def interview ak benn. Pape nga nekk Bakel. gën naa Bakel. waaw Diawara da ngay romb da ngay romb Vélingara dëkku Fadiga bi ak dëkku kii bi eh, kii yi mu tudd ministre la dama koy fàtte Abdoulaye Bathily. Hmm. foofu ngay romb donc mais li ma gis Niakhar ma gis fen lan nga gis ñaaxal. xam solo slogan lañ am les gens aiment le terroir. Hmm. samedi ñëpp ñëw. Hmm. dëkk bi ay ñëw. mel dimanche ñëpp ñibbi. et intellectuel ñaaxal lépp nga fa. gars yi dañoo tubaab bi gëm seen bopp. Oh, bugg a saaj de te dañu gëm jàng. dëgg la jàng moom fa yemoon nañu ko lenn. dañ naan fii les gens aiment le terroir dafa maa moom dafa marqué te dañ koy wax mais dangay dem def constat bi gis ko. mu nekk dëkk ñoo xamante ni dañoo doon ay càmbaar gëm gëm dëkk bi. ñu ngi koy waxee nii sax man gëm naa no yàlla xam na ko ñaaxaar moom franchement parlé. non mais quand tu es convaincu de ce que tu dis. tu convaincs les gens. absolument mu xam ne dëkk bu set dëkk bu silus dëkk bu organisé. Euh, di di di gërëm ki nga xamante ni moom a yombal affaire muy Matar Niang. Mm-hmm. bëgguma bëgguma ma tudd turam mais damay tudd turam Matar. Euh, ak Pape Daly mi nga xam ne mooy logistique bi ma doon jàppale ak Père Modou ak Madame Sène ak euh, Makodou Sène le maire en personne di gërëm waa Ñaaxar yëpp yëpp yëpp macha allah dalal nañ ñu xam gan dafa métti ñun dañoo xaw doy waar. dëkkoon nañ ñu macha allah manqué wul dara. defal ñu lépp macha allah lekk nga fa saaj. lekk naa ko saa gëm ñu macha allah yàlla xam sama benn paaw séeréer bu tudd Paa uh-huh. moom mu ngi dëkkoon Njaga Ñaaw côté Ñaaxar yi noonu. Uh-huh. xam nga ma doon woowee temps booy. boo bi ma nekkee xale laa xam ne boo xoolee mooy xaj. donc voilà mu ngi noonu léegi Pape mu ngi noonu mu ngi noonu mu ngi noonu Pape. Euh, Pape Faye defe naa sa jàll bi léegi gën naa ngan barki yàlla. Pape ma terminé un peu rek. <laughs> su ma gisee ne ma boo xoolee <laughs> man ma foog ne affaire bu garaaw lu may woowee quoi. naka baa paa bi boo xoo bi ma demee ba eh, maa dem ba kër Sele Jabong nan leen man boo xoolee <laughs> naka ne boo xoolee mooy xaj mooy paa paa fay bu fekkee yaa ngi may déglu defe naa sa jaal bi léegi gën na ngan yàlla nga gën a jaal. ndax <laughs> aussi leneen am na fa jigéen ña fa nekk <laughs> dañoo organiser ba ba ba boo xamante ni. ay am na yenn produit yoo xam ne ci biir dëkk ba lañ koy defaree di ko jaayee ci ba dëkk bi di ko jaayee yeneen dëkk yoo xam ñoo ñoo leen dendal am na yoo xam ne bëgguma. produit yàlla ah ay du de ay eau de javel saabu saabu ay sànqal. sànqal ay araw. bon ça c'est yooyu yëpp dëkk ba. dañ koy def mais chimiquement parlant. faire de l'eau de javel eau de javel c'est bien. absolument mm-hmm. koy def ci àll ba ba au delà. de machine yi machine ah, am nañ lépp machine yi am na. eau de javel bi nii ah, bien sûr très bien saabu yi sànqal yi lekk xale yi. Mm-hmm. yëpp loolu ñu koy jaay ba jaay ko dëkk yi ñu dendal. donc ba France seen produit bi produit dafay dem mu nekk dëkk boo. commencé utiliser gélatine bi. dañoo dañoo dañoo dañoo jàmbaare quoi développement communautaire boobu noonu femme yi ñu ngi liggéey ci transformation bi <laughs> ak euh, population Niakhar yëpp. Mhm. di sant di leen gërëm. dëkk yenn dëkk yi nañ jéem mel ni Niakhar. Mhm. Niakhar moom François Paar la ma fi gis moom gis ma ko fenn merci beaucoup. Eh, Dakar mel na Niakhar. non Dakar moom daax ko yomb dara Dakar moom daax ko yomb na waaw ñaaxaar ñu ngi leen di ziar di mm. eh, dëkku séeréer fogole simna nuun séeréer fo eh, nam no mbiyo koy mbaleng jire koy ama ama a ñaaƴa o ndiig o <laughs> jaajëf waay. <laughs> nga nuyu nga nuyu Matar Niang police police scientifique la nekk. voilà <laughs> euh, saa waay maa ngi lay. Euh, booy waxu boxole boobu nag teg leen ko ci suuf dégg ngeen ah. ah Ali soldaaru Bamba Ndiaye nee na Pape Sidi boxole di nga ma rey di nga rey nit fii je suis à terre Pape naa ko gis Pape Faye bi ma koy mujjee gis dafa jaaloon ñaari bëñ yi daj mais defe naa jaal bi gën na ngan léegi yàlla na jël bëñ mu may woowee boxale. looloon def Pafay ba mu lay woowee boxale. Pafay dama ko sonaloon nag. waaw mu ngi ah, dama ko sonaloon looloon def Pafay ba mu lay woowee boxale. sëñ merci beaucoup kon on se donne rendez-vous le à l'université à l'UCAD 2 ak Cheikh Ibrahim Diallo ngir waxtaanee ndono yi Cheikh Mouhidine Samba Diallo lan la ñu mën a jàng ci moom lan la fi bàyyi loo xam ne ndawu Sénégal mën nañ ko jariñoo mm. muy chrétien muy jullit muy xaadr muy tiijan muy laayeen ñu bari ci nit ñi nag découvrir wuri nañ rarement ne moom ci euh, cheikh na cheikh Abdul Xaadir Jeylaani mhm. la jokk woon. Mhm. dañoo foogoon ne rek euh, murit la ñuy foog ne. tijaan la ñuy foog ñu yaakaar ne sax mu xaddam mu bàyyi la. Mhm. fukkeelu maamam ak benn. voilà euh, il faut que qu'on aille là-bas si vous êtes intéressé par la vie et l'œuvre de cet de cet homme. extraordinaire que Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo euh, le le le le l'organisation Calabas de l'Excellence Consulting nous donne l'opportunité d'écouter de vive voix son fils narrer sa vie mm. ce sera le 5 inchallah à bi à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar alaaji maa ngi sant di la gërëm. waaw kontaan ci yow lool alaaji tey moom dama bëgg sax man parce que jëmm ji moom day sama waay. Euh, di souhaiter joyeux anniversaire à Thiané Sène di gërëm mon copain. artisan yi xeexaguñ ah artisan yi xeexaguñ. non artisan yi. bàyyi nañ bàyyi xuloo bi tey xeex bàyyi xuloo bi tey xeex. waaw Ousseynou Diallo ñu ngi lay gërëm. man dinaa ñëw incha allah ñu gisee ci kàttanu yàlla. <coughs> am na solo trop di bàyyi Papa Amadou mu tàggatoo rek moom it. waaw di sant ñëpp di sant ñëpp di sant waajur yi bu wér. ndaxte ñun lépp waajur la euh, lu ñu daan ko parce que ñoo fonk waajur yi di remercier euh, di Diallo franchement parlant di remercier association bi yëpp di sant Cheikh Ibrahim di la sant yow franchement parlant ci invitation bi kii sama frère la yàgg nañu ma maag moom Pape Sidi aussi merci mhm. Mané toute l'équipe dasi bi sama kër la maanaam day jaay fataay wax naa la ah bon oui loolu yëgu ma ko léegi daal après xam naa dañ dem jënd ci boobu mhm. et merci beaucoup yàlla na yàlla fay le 5 incha allah rabi waaw man damay santaat yàlla bu baax a baax ginnaaw ba ngeen ñu dalalee ñu wax ci Cheikh Mouhidine donte nag waxaguñ fi loo xam ne lu yaatu la ci moom mais on aura ñu waxtaan ci moom lu yaatoo yaatoo yaatoo yaatu les tenants et les fi mu tàmbalee ba fi yem kan mooy Cheikh Mouhidine ak lan ak lan ak lan mooy nekk ci biir daanaka bu ñu ko waxoon fii tamit thème bi du am solo te doomam comme dina ñëw waxtaanee ko kon dinañ xam lépp lu ci nekk. damay sant ñaari tali gi ma jógee Sibassor gi ma dëkk maa ngi nuyu sama wujur bu jigéen bu baax di ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram di ko ñaanal sama famille yëpp di jaajëfal nag euh, waa Calbas Consulting di leen wax ne nañ seet ñeneen ñoo xam ne mel nañ ni Cheikh Mouhidine